salaamaaleykum internetu des Prod naqar wàcc ci axlu cinéma kii di euh, Mouhamed Camara ñu gën koo xam ci Momo Camara bokkoon ci série boobule euh, di Virginie euh, ñàkk na bakkanam ñàkk na bakkanam tey ci altine ji fële ci hôpital bu Wakaam ñu ngi xamle nag ci information yi ñu jot ni ci ñaar fukki at ak ñeent la ñàkk bakkanam ci feebar bu ñuy wax drépanocytose ñu ngi koy massawu di ko jaale képp koo xamante ne ne rek mbokkam nga rawatina uh, waa série boobule di Virginie uh, di wax rek uh, suñu borom yàlla na ko teeru ca aljana ya gën a kawe